soog a seet ku muy jaay maanaam day jaarle li mu war a béy li war a ñor leen daf koy jaay balaam koo ji approche boobu loolu lay santaane ñu ngi ko développé ak suñu mbokk waa Japon ñu koy wax JICA euh, euh, ci juróomi at yi passé mu doon lu loo xam ne am nañ ci ndam lu rëy euh, pour tontu sa laaj boobu sax mooy dem nañu ba juróom-ñaar fukki kuréel ubéykat ak juróom-benn encadré nañ leen ci maanaam jox jox nañ leen xam-xam boobu ak doxalin boobu ba ñaar fukki junni euh, béykat daanaka ak ñaar jëriñoo nañ ko ci seen biir fukki junni ak ñett ay soxna lañu loo ci gis mooy xanaa soxna yi jigéen ñi ñoo ëpp ci ñi jëriñoo. projet bi loolu nag jaadu na parce que ku nekk xam nga ne jigéen ñi ñoo gën a dugal seen loxo ci horticulture li wax mbéyum dër buñ béyalul seen bopp it ñooy béy ñooy witt ñooy jaay ñooy soppali lii jooy ñoree ci mbéyum dër li ko wutale ak deuxième phase bi mooy deuxième phase bi daanaka dañ bu doon première phase bi dañ daan dañ doon natt dañ doon xayma seet njeexital la léegi nag gis nañ ni njeexital la am na baax na te yaatu na ñi ci jiduñu bari na lim leen jariñ bari na mooy yokkute ci seen am-am mooy mën a saytul seen bopp seen mbéy seen mbéyin ak yan mbéy la ñuy béy C'est donc euh, approche CEP, c'est une euh, approche prioritaire pour euh, la coopération japonaise ici au Sénégal. Mais cette approche est déjà déjà commencée et en, 2009 à Kenya. C'est, cette approche est déjà vulgarisée et partout dans l'Afrique. maintenant, le Sénégal est un pays et des centres au niveau au centre euh, sous-régional. donc cette approche va se euh, et, euh, aux pays voisins en collaboration avec euh, entre la JICA et le Sénégal. Donc la JICA nous met à disposition cinq experts japonais pour accompagner les activités et de parties sénégalaises.